essentiel mooy na ñëpp wér. voilà c'est ça en fait comme c'est de la responsabilité de l'État test yi nit ñëpp xam ne mi ngi ci structure publique yi et gratuitement garab yi bi faj palu simple parce que là aussi il faut le dire il deux sortes de palu il y a le palu simple il y a le palu grave n'est-ce pas. palu simple bi waaw neuropalu palu avec anémie très sévère ak yooyu. Mm. donc ça c'est les palus qui sont un peu compliqués palu grave euh, palu simple bi traitement bi. c'est gratuit aussi au niveau des structures sanitaires sur la base des ACT yooyu ñuy wax. Mm-hmm. maintenant euh, y a l'autre volet parce que en général même euh, parce que daaw y avait le débat ñu doon discuter est-ce qu'il faut pas rendre le traitement du palu grave euh, gratuit et tout ça. Euh, mais je me rappelle dafa a gratuit. je me rappelle non je me rappelle un peu de la réponse du ministre de l'époque il disait que parce que en général ñii dem palu grave bon c'est pas tous mais ñenn ñi problème sàggante la. affaire bi commencé nga nga nga war a donc on euh, disait que gratuit c'est faire en fait euh, <laughs> la promotion pour que nit ñi bañ a kii te li ñu bëgg di ñaax nit ñi c'est vraiment que ku yëg sa yaram nga teel a jóg mhm. vraiment faj bi du la coûter dara Mmh. et puis de, de parce que il faut qu'on en parle aussi l'aspect économique. waaw nekk xam na ne mbokk mbokk mbokk fili na dañ lay toggal ngurbaan def ci li naan la lekk ci ba ñaq boo ñaqee rek. mu génn mais xam nga même togg bi. <laughs> soo melee ni man nag doo bëgg jug naan damaa feebar ñu lay. ngurbaan lay lekk voilà donc mu indi ay dépenses supplémentaires. <laughs> donc bu fekkee xale la yaayam xëy na du mën a liggéey bu war a liggéey. bu fekkee ne ku nekk ci tool bi la xëy na bu tombeek hivernage surtout nga xam ne. mooy mooy ci gën a bëri a du mën a donc voilà donc euh, genre kii la xale bi pauvreté bi daf koy daf koy favoriser. Mhm. mais euh, sàggante bi aussi. donc même chose aussi euh, pauvreté bi aussi donc euh, ku nekk ce qu'on appelle en médecine échange de bons procédés waaw ku nekk di jàppale sa morom pali bi di jàppale pauvreté bi pauvreté bi di jàppale bi mm. euh, na ko sànq wax na fi waxi sànkee ñi naan dal mm-hmm. euh, dégg naa ngeen di wax couverture universelle couverture universelle bi lan ngeen ci jublu ak loolu ndax dina sotti parce que gisoon nañ fi sànkee yi ñu fi doon maye euh, ci zone yi inondé woon ci banlieue bi ñu bëri dañ ko doon jël ko jaayaat ñenn ñi dañ koy sax naya daaj jël ko aj ko seen kaw armoire waaw donc sànq yooyu jëriñul. waaw moo tax euh, expérience bu nekk il faut mu jëriñ dara. Hmm. ñu jëlee ci loo xamante ni moom la ñuy gën a mën a doxalee comme ni nga ko waxee sànq dafa doon aujourd'hui euh, moyen de prévention boo xam ne mën nañu wax ne moom moo gën a efficace aujourd'hui ci ñu amagum euh, pour la lutte contre le paludisme. Hmm. pourquoi couverture universelle bi comme ni nga ko waxee joxatuñu ay nit moustiquaire. dañu def couverture universelle depuis 2010 commencé ko ci yenn régions yi ndax dina continuer déjà on est à euh, dix régions yoo xam ne couvrir nañ ko entièrement il a deux régions yi nga xam ne def nañ formation parce que sànni si une formation pour le faire muy Ziguinchor ak euh, Louga ñi ngi ci actuellement non non sànq yi léegi kenn du ko naan dal daf c'est euh, c'est pré-imprégné à l'usine ci mm-hmm. usine bi déjà lañ koy defaree n'est-ce pas mm-hmm. léegi ce qui fait que ñooñu ni ñu koy distribuer dañuy dugg ci kër yi recenser lal yi mettre ko au niveau des lits identifier propriétaires yi dajji moustiquaire bi comme ça kenn dootu ko mën a jaay. Mhm. kenn dootu ko mën a denc parce que kii bind ci tur. Mhm. yi nga xam ne moom mooy euh, bénéficiaires yi. donc benn lal benn moustiquaire benn moustiquaire. donc on l'a fait déjà ci dix régions ni ma ko waxee ñu ngi ci douzième région yi donc Dakar actuellement ak Thiès rek moo ñu war a dese. et ça c'est le gros boulot rapidement waaw c'est le donc ma rappelé loolu mooy thème forum bi tey ci ngoon au niveau de Pikine. Mhm. Euh, comme tu dis c'est un gros boulot Dakar. parce que di ñëw ci kër yoo xam ne dafay tëju di ñëw ci kër yoo xam ne xëy na duñ la bàyyi nga dugg donc yaa yu ñu lal ci suuf waaw loolu am na fépp sax mais mhm. ça on est parce que couchage ñun sax couchage la ñuy wax waxuñu lal donc ça veut dire que nit ki bu fekkee ci basangam lay tëdd dinañ ko couvrir basangam bu fekkee lal lay tëdd dinañ ko couvrir lal mhm. mais euh, def mhm. c'est un défi c'est particulier donc tey loolu la waxtaanee moom daanaka li ci des mooy forum bi tey ci ngoon. parce que mhm. démb daf nañ journée palio à l'école mhm. au niveau de l' école 10 de Pikine vraiment ma si profité pour féliciter directrice bi IDEN bi ak les l' équipe de du district. parce que c' est une organisation vraiment réussie démb xale yi ñëw nañu ils ont prouvé que vraiment ils ont été bien formés donc defoon nañu randonnée bi aussi euh, euh, dimanche passé donc euh, féliciter tous les participants parce que ça a été vraiment une <laughs> <laughs> film am gisuma ko. non suba laay gis. <laughs> j'ai vu Adama Kandé je sais pas s'il a marché ou pas mais il a filmé <laughs> <laughs> euh, donc demain euh, tey bu ñu defee forum bi suba nag mooy cérémonie officielle bi donc moom ngeen di defee Pikine moom la ñuy defee Pikine avec mhm. euh, sous la présidence du du ministre de la santé et de l'action sociale madame Eva di la gërëm ci teewaay bi di gërëm tamit madame Bey moom moo ci mhm. jàpp ba tey nga mën a teew fii alors di la remercier Fidi ma bàyyi la kon ak voilà